KMTV une chaîne YouTube où leen di indil ay xibaar yu wër te la ci politique économie santé éducation religion sport ak d'autres événements. mbokki adduna bi yëpp man la Mbaye Seck le conseil technique du directeur général de QVS en charge de la communication Tay, dañu am dañuy dellu de santé. ci li nga xamante ne ni ñu ngi ko doon dund ay weer ci ginnaaw walla sax mën naa ne ay at ci ginnaaw mel na ni ki atte yàlla moo gën a wóor at nit ba tax na tu tey jii ñu génnaat pour am ay leeral yu leen àndil lu bees lu jëm ci li nga xamante ne ni ah, mooy sunu xeex bi leeral bi moo di ne lépp loo xamante ne ni wala boog kuréel yu laale ci bërëb bi ñu nekk nii banqaas yooyu yëpp tey dañuy yéesalaat ay bataaxal yi nga xamante ne nii eh, sàkkuwaat nañu ko ci ñoom ngir ñu gën ñoo andilaat li nga xamante ne nii eh, mooy eh, leeralu mbir mi ma jëkkee ci document bi nga xamante ne nii moom la waa cadastre Thiès jox waa QVS waaye tamit ñu jaarale ko ci benn expert bu ñuy wax Alassane Ba moom it doon saytu ba xam béréb bi ñu nekk nii fan la bokk exactement waaye bi nga xamante ne laaj nañu cadastre cadastre daf ñu yebal ci fi nga xamante ne ni mooy anaat nee ñu nañu dem ci anat parce que anat moo yore wàllu saytu mbir moomu waaye ñoom jàppan nañu ne mboolem liggéey yi nga xamante ne ni dinañ koy amal fii ci béréb bi liggéey yooyu yëpp ci département de Thiès lañ koy liggéeyee ndax coordonnées ñuy yor coordonnées département wu Thiès la kon mel na ni ñoom lañ leen laaj. andi nañ ci tontu waaye du tontu bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko waroon a tontu waaye wane nañ déjà loolu nekk mu nekk benn preuve boo xamante ne nii muy benn ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy bataaxal bi nga xamante ne tamit moo tukkee fële ca cadastre bu mbuur mbuur tamit bi ñu leen laajee euh, géolocalisation wu site bi ñu nekk ni muy QVS waaye ñoom it dañuy wane ne ñoom compétent wu ñu pour ñu mën a joxe géolocalisation site bi xanaa rek ñoom it ñu yebal ñu ci fi nga xamante ne nii euh, mooy ANAT pour que mu mën ñu ko leeralal kon ce qui veut dire que euh, cadastre bu Mbour loxoom amu ci benn yoon ci fi nga xamante ne ni mooy bërëb bi muy QVS muy cadastre bu bu Mbour waaye ci loolu noonu dañuy dellu fàttali askan wi ne anat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di jublu jëm rekk ci wàllu leeral fi nga xamante ne mooy fu nekk nii ca ndorteel ba bi nga xamante ne ni QVS ñëw na e, bëgg installé wu fii ba mu laajee woon anat àndaat xamal ko ne ko fii ci département wu Thiès la bokk waaye plus précisément ci commune Kër Mousse loolu mu boole woon ko tamit ak li nga xamante ne ni mooy carte bi muy wane exactement fi nga xamante ne mooy géolocalisation site bi kon ANAT àddu woon na ci ca njalbenn loolu lépp nag tax ba QVS ci boppam jàpp ne

le 24 juin Le 24 juin bi nek ni, donc mu wane ne effectivement euh, fii ñu nek ni, ci commune Keur Moussela, dans le département de de Thiès xam nga mi ngi ni ñu daté ko le 24 le 24 bi kon li, barki démboo Njaay la kon yemul ci lolu sax dafa ne fi ci forêt classée de Thiès la kon bu wax forêt forêt classée ñu gën ko leeral donc loolu ça veut tout diir mu nekk nag loo xamante ne lu jar a bàyyi xel la waaye toujours nag daf ñuy daf koy boole ak ay carte yoo xamante ne ni daf lay gën a leeralal mbir mi position géographique am fi mu dooree ba fu mu agsi ak li war a mën a tax tamit ñoom ñu am jumtuwaay yi tax ñu xam ne lii la àndandoo ak ay coordonnées kon lii ma leen di wan ni ay bataaxal yu leer nañ kon loolu nekk na loo xamante ne lu am solo la lu jaral leeral la léegi bi ñu jógee ci foofu noonu anaat boobu tamit euh, kii nga xamante ne mooy eaux fore moom it aussi bi mu posé euh, question bi bi mu ko laajee anaat tamit anaat daf ko àndilaat benn document bu précis bu xamante ne ni aussi dafay wane rek ne fii ci commune de Monsieur Le bokk dans le département de Thiès mais encore une fois li nit ñi gën a bàyyi xel mooy eaux forêts toujours dafay préciser ne fii ñu toujours dans la forêt classée de de Thiès kon yoyu da di ay mbir yo xamante ni donc lu nu wara a la waye yemuñ ci loolu aussi am ben rapport rapport bo xamante ni rapport expert Alassane bah ndax bi ñu ko laajee ne la dem saytu ji euh, fi nga xamante ne nii li nga xamante ne moo xew fii nii moom fi ñu jaar yépp jaaraat na fa jaar na ci cadastre yi maa ñaari cadastre yi ku ci nekk tontu ba nga joxo jang ba nga ñu joxoon tontu boo la ne ñoom compétent wuñu pour ñu wan wane exactement euh, fi position bi nekk waaye Euh, maanaam liggéey yi nga xamante ne am nañu ko ci site bi ci secteur bi donc liggéey yooyu yëpp ñu ko adressé fi nga xamante ne ni mooy mooy Thiès léegi nag bi mu boole yooyu yëpp mu ñëwaat encore ci li nga xamante ne ni mooy euh, rapport bi rapport bi li mu wane mooy dafa saytuwaat dañu saytuwaat càmbar suuf si nga xamante ne nii moom la QVS occupé di ci bay moom mu xamle ci biir rapport bi que ne fii ba tey du zone bi nga xamante ne ni war nañ ci mën a tabax waaye zone la boo xamante ne ni zone mbay la mooy li tubaab di wax zone fi aedificandée loolu yaakaar naa ne ku dégg tubaab ku ne bu ñu la waxee loolu nga xam ne foofu du suufas euh, tabax waaye suufas mbay la dem ci ba ci biir rapport bi wane insécurité bi mën a am ci autoroute à bi ngir ëllëg bu fekkee tabax nañu foofu ñu mën a fatt yoon wi nga xamante ne ni mooy moo fi jóg moo fi jógee di euh, yóbbu ndox bi ba côté Somone te loolu noonu naturellement sax depuis ba ñuy xale ba léegi gis nañu ne yoonu ndox bi moo nekk noonu carrément dem fii ba génn ca euh, fële Somone donc mu loolu rek mu nekk loo xamante ne tamit leeral la parce que bo xolé fi ci rapport ci kibi da ngay gis euh, canaux yi yi nga xamantene ñoy sorti ap autoroute à bi dañ ko génnee pour que ndox mi man fee jall bal mais ndox mi buy génn fofu ci tol bi lay verser carrément bu fekkente ne par exemple fofu dañ ci samp ay tabax ak yu demee nonu moy rek né dañuy créer wat encore ay inondation yu ken xamul donc motax euh ci lolu ak qualité suuf si nga xamantene ne fi nekk té muy suufas ban

dama demander le ministère de la justice ak aussi le ministère de l'environnement ci wàllu autorisation de lotir kon xana bañuy joxe autorisation de lotir saytuwuñu bu baax càmbaruñu fi nga xamantene moy mooy suuf pour wara a xam ndax réellement fi war nañ ci mën tabax wala waruñ ci tabax kon nak ñu ngi alerter encore une fois de plus fi ki moo moko mom ci kayit yu leer yi nga xamantene ne ko dafa jaar ci état état jox ko ko waaye fii tamit mu nekk bërëbu euh, li nga xamante ne ni mooy bërëbu euh, euh, bay ba tax na ci loolu le ministre de la justice décision de justice yi nga xamante ne nii ñële ñu ngi koy brandir te ñu nekk fii ci commune Thiès décision yooyu jóge fële ci commune Mbour loolu jàpp nañu ne jaaduwul légalul ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg te toujours dañuy wax ne liggéeykat yi nekk fii yépp di fi daan seen doole kenn ku ci nekk di ci di jëriñ sa njaboot di jëriñaale ñeneen ah gar nañu suñu bakken ci tool bi ndax nag duñu ñu nangu mukk nit jóge fële ci li ko neex ci euh, euh, euh, coobaare boppam ñu war koo xañ ay junni junniy liggéeykat fii di ko ko jox loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg lii ba ñu koy àtt ci njëlbeen

ci nawet bi duñ ko bàyyi moomu mu niil dinañu ko bay ci saison bi ñu dugg nii au moins ndax Sénégal mën cee jëruñu parce que ñu ngi jooy toujours ay manque euh, insuffisance euh, autosuffisance alimentaire donc euh, espace bu mel ni nekk fii kenn nit condom teg ko loxo loolu di tardel Sénégal loolu dafa war a jeex ñu daal en tout cas pare nañu à pied ferme lu ñu fi mën a fekk si ak lu mu mënte doon lu ne danañ jaamarloog moom ngir ñu jot suñu moomeel ci kàttanu yàlla léegi nag leneen li ma ciy teg mooy bëri na ay ñoo xamante ne ni xamuñu dañuy toog ci plateau yi ngir liñ leen jox ngir neexal gi ñu leen neexal ñuy wax lu ñu xamul ci dossier bi mën naa na mën naa ci nag lim ñu bëri fii tey xamuñu dossier bi tey xamuñu ko ëllëg am nañu fi jaar sax di wane ne am nañu baat fi ci biir Sénégal wala am nañu kàddu waaye xamuñu ne ñooñu fi ñu toll nii Sénégal fàtte ne leen caaxaan amatul dëgg ci la ñuy nekk ci la ñuy dund ku wax ku waxul dëgg suba balay ngoon ñu xam ne waxoo dëgg te ñu jàpp nañu ne ñoo daan manipuler li nga xamante ne mooy état Sénégal yi ay soi-disant c'est ay rappeurs lañu c'est pas xamu lan lañu doon nañu génnee seen loxo ci dossier bi ñëw nañu fi càmbar fi xam li fi nekk. gis dëgg gi fii la fete waaye bañ demee ba ci biir dañu changé seen i camp di déeyante ak ñi nga xamante ne xëy na ay kilifa lañu waaye dañu leen di fàttali ñooñu dañu leen di nax apporter lu ñu Sénégal dara ñuy toog ci plateau bi encore une fois de plus bëgg li neex sa bopp wala bëgg bëgg li nga am ba tax ngay lor ay junni junni doomu adama loolu dafa war a jeex fi ci suñu senegal gii loolu nag tey jii dañ ne woon ñëwuñu nag di wax ci waxin goo xamante ne nii maanaam waxinu ñàkk teggin waaye nag dañuy wane ne dañuy gën a santaat yàlla tey suñu génn gi dañuy sant yàlla gërëm ko ndax àtte yàlla moo gën àtte doomu aadama bi ñu bàyyee la temps jàpp nañu ne tey yaay yàlla leeral na mbir mi ndax documents yi ñuy yor yépp ñu yeesalaat ko muy wane muy firnde que ni QVS mu ngi ci commune Kër Mousse loolu sant yàlla la bu baax a baax donc mbokk yi xam naa ne duñ doon guddal tey dañu doon rek yéesalaat yëgluwaat wax ne fi ne nii ah fi mu ne nii cuvees soble gaa ngi fi ne yi macha allah soble gi bay nañu ko fi macha allah mi ngi nii muy xonq muy weex lu ci waay soxla lu ne ñëwal fii nga xam ne fii la yëf yi dëgg gi lii fii la lii lañ soxla ci li nga xamante ne nii donc mooy liggéeyu Sénégal nañ ko suqali soble gaa ngi fii encore une fois de plus ñu ngi leen koy wax su ko defee vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu KMTV une chaîne YouTube où l'on indil ay xibaar yu wërté lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yenen événement képp ki nga xamné ne yaa bayé ko Kër moussé, mo xam nga nek ci biir wala ci biti di nga mëna sétane séni événement wala match navétane yu gëna neex ci biir KMTV KMTV ñëriñu wa Kër moussé.